ëmb jàngalekat maître contractuel yi nekk ci Sénégal fépp daal nañu interpeller autorités compétentes yi ngir ñu xoolaat seen statut muy euh, certificat d'aptitude pédagogique loolu nag enseignant bi day nekk di ko xaar ay ati at mën na ko xaar cinq ans maanaam juróomi at yoo xamante ne commission bi ko war a xool si du ñëw xool si ko pour nekk fonctionnaire mu xaaraat ko lu toll ni at wala ñaari at te loolu yëpp day nekk metre contractuelle duñ ko fay normal duñ ko traité normal te pourtant li muy def liggéey bi muy def euh, c'est le même travail maanaam liggéey bi muy def moom la enseignant yëpp di def ci biir classe yi collectif bi nag di soññ autorité concerné yi ñu daal di yemale enseignant yépp enseignants yi di génnee ci ci centre de formation euh, régionaux yi maanaam CRP yi ñu ciy génne ak CAP pratique loolu proposé nañ ko tegoon naa ba léegi yayu ci yëbbi te loolu bu ñu génnoon dana tax enseignant bi dootul xaar 5 ans wala 6 ans wala 7 ans wala juróomi at wala juróom-benni at wala juróom-ñaari at fi nga xamante ne mooy ci école am pour ñu mën koo gis mu at mi examen boobu après bu ko paree tamit day nekk di xaarat ay ati ci fàttali collectif des enseignants maîtres contractuels du Sénégal nee nañu dañu bank seen yoxo danañu dem ba jusqu'au bout ngir rekk ñu am li ñu bëgg su fekkente ne seen préavis de grève yegg nañ ca